Lansana Gagny Sakho maa ngi lay nuyu. maa voilà may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey directeur office nationale bu assainissement bu Sénégal di ONAS muy Lansana Gagny Sakho tey jii ñu wax ci actualité laata ñuy dugg ci li nga xam ne moom mooy seen domaine ñu gis ne euh, dañoo jël phase bu bees wala dañoo amal phase bu bees ci xeexu coronavirus euh, gis nañ ne euh, mesures yi ñu jëloon ca ndoxteel ba tey jii dafa mel ni wàññi nañ ci lu bëri nan nga ko jàngatee en tant que sénégalais. waaw ñaari jàngat laa ci def benn bi benn bi mooy boo jiitee ay nit euh, laaj bari ñu am soxla ñëpp di insister mhm. euh, fok nga seet ndax loolu méngoo na ak lu ak lu am ak lu ak luy njëriñum réew mi nga seet ndax da nga koy def ou pas defe na président loolu la xool mhm. dafa déglu askan wi seet tawat yi seet soxla yi mu mu waxuma teggi loxo mu allégé lu bëri loolu aussi lu muy tekki mooy ñun ñëpp muy yow muy man muy keneen euh, teg nañ ñu devant nos responsabilités defe naa day am moment boo xamee ne nag loolu fokk ñu def ko euh, dañuy wax euh, responsabilité individuelle defe naa wéy sunu responsabilité individuelle responsabilité collective la ñaari la boole parce que benn nit bu feebaree du yem ci moom. dafay jàpp ñëpp moo tax dañu war a gën a renforcer mesure euh, euh, sécuritaire yi li ñuy digaloon li waa kër docteur digaloon mm-hmm. defe naa dañ ko gën a renforcer gën a taxawaat gën a sàmm suñu bopp euh, dañ ko war a gën a def pour ñaar benn pour sàmm suñu askan beneen bi aussi pour dellu njukkeel waa kër docteur defe naa li ñu sonn ñooñu amul kenn ku mës sonn ci lii defe naa daal Euh, li war a am président jël na mesure yi maintenant nag léegi nag ku nekk war na xool naka lay demee mesure yi tekkiwul ne lépp ku lay def lu ko neex loolu moo tax na may profité di féliciter euh, waa kër euh, église bi defe naa ñëpp gis nañu seen taxawaay bi mesure bi génnee loolu la ñuy xaar defe naa ci ñëpp. lii moo am nan la ñu war a demee parce que léegi responsabilité individuelle la ku nekk ak sa kuréel nga xool naka nga war a def wante feebar bi eh, mooy li may wax toujours rek daf dañ ci war a jàng euh, li muy wane ak suñu comportement ñun ñëpp muy yow mooy man mooy euh, suñu dëkk Sénégal euh, ñetti yëf la la la xamee ne war nañ ko xoolaat mm-hmm. benn bi mooy li di wax éducation beneen bi mooy éducation beneen bi mooy éducation éducation nag yamul ak am ay diplôme wala yemul ak dem école bay nekk sax docteur mhm. ah. eh, weesu na loolu war nañu xoolaat suñu bopp si lu bari bu ñu génnee si lii continuer di def li ñuy def di doxalee ni ñuy doxalee loolu day wane ni on a absolument rien compris waral nañ waral nañ daal xoolaat suñu bopp bu ñu bu ñu génnee si lii man daal loolu laa koy jàngee woote rek nit ñi Euh, ñu gën a ñu gën a farlu gën a moytu gëna topp mesure yi nga xamee ne amoon na démb lii tekkiwul mhm. ne mhm. lii tekkiwul ne ku nekk mën na def lu ko neex dëgg la mais ndax foogool foogoone euh, tey jii ndax lu waroon la njiitu réew mi xoolaat li nga xam ne mooy mesure yi mu jëloon dès le début waaw xam nga bu ay nit hmm? ñu ci bëri ñu ci ëpp bokk ànd eh, ci benn wax rek lii la ñu bëgg lii la ñu bëgg lii la xam nga mënoo ci dëkk di tàng xam lu parce que dañuy wax eh, ñi la na teg fi ñoo nañu jiital ñu hmm. xam nga loolu nag mënoo nekk da ngay tàng xam lu tàng xam lu et puis ñun ñëpp duñu ay xale ay mag lañu defe naa am na sax li am tey mesure yi bu ko président nguur gi jëlul woon mesure de protection yi les mesures barrières la ñuy wax mhm. mais ñëpp dañ ko waroon def voilà gëmuma ne euh, gëmuma ne li ma gëm man mooy daal du pression askan wi njiitu réew mi daa déglu askan wi gis nga gis xaw ma ko bu baax wax dëgg yàlla li ma gis président barewul mais ku ko xam tuuti la wax tuuti ci nga xamee ne président boo ko jëmee teg pression sax bu naroon def dara def ci génn du nit boo xamee ne day dox ci ay pression dañuy positive rek xam nga nag suñu dëkk bi moo xaw a moo xaw a doy waar ci fan na yu bëre monsieur Sarr nga ñi doon ah, wax ah, ah. ñi wax euh, euh, bu ñuy wax dëgg ñi doon wax yëpp defal li defal li yi dem na tey ñu ci bëri mm-hmm. ñu ci bëri fit yi dem na te ñoom ñoo doon wax démb def leen ñi def leen fit jarul muy dem ne ku nekk def li la war mooy nga respecter mesures barrières ak leneen ak leneen parce que gis nga kër docteur. Mhm. bu ñu demee ba tubaab li ñuy wax seen capacité c'est-à-dire li ñu mën a faj àttatuñu ko ant bu ñu àttanatul li nga xamee ni mu ngi ñëw ci ñoom ñaanuñu ko yàlla de mhm. wante maaradu itaali lu bëri mën na xaj ci loolu kon nit ñi nañu respecter mesures barrières yi loolu rek la ñu war a def ñun ñëpp. kon daal tey responsabilité bi ñëpp la engagé. waaw responsabilité dafa mës a engagé ñëpp ci lépp c'est que dañu am réew bu xaw a doy waar quatorze millions dañu quatorze millions de spécialistes ku nekk loo xam ak loo xamul nga wax uh-huh. moo tax man la sànq jafe-jafe bi ñu am mooy éducation éducation éducation foog ñu xoolaat nit ñi nit ñu xool seen bopp te éducation du def nga université am la jaasa déedéet du loolu defe naa ñi ci kaw a kaw sax yenn saa yi boo leen déggee da ngay yéemu ci yàlla ok defe naa foog ñëpp ci xoolaat suñu bopp daal monsieur Sakho ñu wax ci li nga xam ne mooy euh, seen liggéey yéen ñi ONAS euh, nemmeeku nañ ko saa saa ñuy dugg ci li nga xam ne mooy nawet bi dañuy gis ne da ngeen di amal ay opération ay liggéey di assainir euh, ngir mën a waajal lii di nawet bi ndax tàmbali ngeen ko. waaw liggéey bi tàmbali nañ ko depuis le mois d' sax daaw ñu ngi commencé woon en juin juillet daaw moo taxoon ñu am yenn jafe-jafe ñu ndaw mais dañu anticiper. commencé nañ liggéey bi depuis avril. Mhm. Euh, bu ci yàlla àndee fin juillet trente et un juillet Sénégal yëpp yëpp yëpp euh, liggéey bi dinañ ci pare. léegi nag toog xaar man nag particulièrement ak ñu nag waa ONACIM defe naa ni ñaan yàlla mu am nawet bu baawaan pour euh, askan wi taw bi bëri parce que Sénégal yamoon ci Ndakaaru suñu mbokk béykat yi loolu la ñaan li war daal def nañu ko ñu profité aussi di ñaan askan wi pour ñu jàppale ñu ci liggéey bi ñaan aussi maire yi ñoom it ñu jàppale ñu ci liggéey bi pour ñuy désensabler dindi suuf si nga xam ne dafay nekk ci mbedd bi daal. canalisation yi sax fan ak fan ngeen koy amal. Euh, euh, opération yi Sénégal yëpp yëpp Dakar la ñuy njëkk a commencé parce que équipe bi fii la ñuy nekk mais Sénégal yëpp foo mënti dem fépp nga xamee ne am nañ fa am nañ fa conduite am nañ fi ouvrage. Mhm. ñu dem def liggéey bi liggéey bi nag mooy dindi salte yi nekk ci ci. Euh, ci ci conduite yi. Mm-hmm. te salte yoo xamee ni bu doon euh, jamono day dox normalement waroo ci war nekk. Ah, ci nan noonu. ah xam nga gis nga salte yooyu ak virus bi benn la du ñu dox dem da di fay dugal <laughs> ci biir loolu mooy loolu laa wax rek. sànq yaa ngi woo maire yi waaw ñu ñu gën a taxaw ci seeni responsabilité nan la maire yi mën a lëkkaloog yéen ci seen liggéey googu. waa liggéey bi dafa am nu mu tëddee. Eh, eh, ñun conduite lañ xamee ne mooy fii ndoxu salte yi di aw ndoxu taw yi ñun dañ bu dee dafa tëju dañ ko war a nettoyer dindi salte bu ci biir yëpp su fekkee bu ndox bi ñëwee mën a dem mhm. mairie seen liggéey ci ñaari pàcc la benn bi mooy suuf suuf bu nekk ci tali mhm. ñoom ñoo ko fa war a jëli balaa nawet bi ñëw parce que bu ñu bàyyee suuf bi taw ñëwee suuf bi yëpp day duggaat ci biir conduite yi loolu mooy liggéey bi ñu def yëpp amul du am solo mhm. beneen bi mooy euh, kundiir lépp loo xamee ne ndoxu taw daf fay dem te tëjuwul ah. comme canal 4 bi nekk dem géej loolu liggéeyu maire la responsabilité maire la yooyu aussi ñoom ñu taxaw si daal di ko defar am na si nag yoo xamee ne yu mag la mooy canal 4 bi nekk euh, Soumbédioune bi dem Soumbédioune ak mm-hmm. canal 6 bi dem Hann liggéey boobu ñun nañ leen ci jàppale. nañ leen jàppale ci liggéey boobu def ko ONAS def ko mais am na yeneen nag yoo xamee ne yu ndaw la foog ñoom ñu def ko parce que mënuñu nekk fépp te réew nu muy doxee ku nekk da ngay am cër te ku nekk bu defee cëram rek defe naa ne euh, xëy na mu gën a yomb ci askan wi ñun ñëpp loolu la ñuy wut ONAS loolu mooy suñu liggéey defe naa mair yi aussi maire bu ci nekk lu muy wut mooy sa administré nawet ñëw mbënd bañ a am ci fi dëkk. Mhm. justement nawet bi euh, dégg nañ ne sax bu ñu sukkandikoo ci prévision ANACIM yi nawetu ren gi euh, taw wi dina bëri lool ñu gis ne taw bi saa bu bëree euh, day am jafe-jafe ci système canalisation bi lan moo xew. waaw ñaari yëf moo xew mooy ñu moytu mooy ñu moytu seet ñu moytu jaxase mhm. boo demee fu mel ni Kër Massar mhm. Kër Massar bi ci ginnaaw Kër ma saar amul système de canalisation amu fa foofu àla kuli alin bu tawee mhm. taw bu bëri foog ndox bi toog fa nu ñu wax nag lan moo tax Kër Massar amul mooy nit booy tabax dara dafa am looy commencé da ngay defar tali defar canalisation balaa commencé dugal benn brique fi ci gox yu bëri ci dëkk bi am na foo xamee ne ay yoonu ndox la nga ñëw tabax fa amoo canalisation boo amee canalisation yàlla mën na dimbali bu tawee ndox bi dem mais boo ñëwee tabax fenn fu amul canalisation noo def ndox bi bu ñëwee day taxaw loolu nag bu amee dañ ciy jàpp ñun bu taw bi passé ñu ñëw pomper ko loolu mooy indi jafe-jafe yi fi nga xamee ne am na canalisation nag dina am aussi yenn saa yi mu am mbëdd mën na mi mooy ndox mi demul mhm. yenn saa yi mën mi mooy aussi ndox mi ñëw ak doole bu mag a mag dem bi yéex waaw loolu daal mooy indi mais euh, fépp foo xamee ne amul canalisation mhm. ala kulli alin bu tawee taw bu bëri foog ndox bi taw fa parce que foog mu am yoon bu muy dem foog ndox foog mu aw yoon pour mën a dem bu amul yoon nag foog ñu xaar ba taw yu weesu nit ñi ñëw daal di ko pomper. Mm, waaw loolu mooy indi jafe-jafe yi. ndax Sénégal am na tamit système canalisation bu baax. waaw li mu la mën a wax ci loolu mooy euh, euh, euh, am nañu système bu baax am nañu système boo xamee ne aussi dañ ko war a renouveler renouveler mooy système bi dafa yàgg ci yenn gox yi dañ ko war a saytuwaat yokk ko parce que Sénégal am ñaar fukki at. ak population bu ñu amee ñaar fukki at ci ginnaaw ak léegi du benn kooku nit ñi dañuy yokk. ça veut dire système canalisation bi ñu amoon foog ñu remplacer ko loolu ñu ngi ciy liggéey loolu moo tax am na système de canalisation yoo xam ne dafa dépassé waaw am waaw loolu moom am na mais ñu ngi liggéey pour kii ko mais am nañu man gëm naa ne am nañ système bu baax jafe-jafe bi rek mooy système bi dafa àttanul euh, nit ñi ni ñu toll loolu mooy jafe-jafe bi mais li am solo mooy ñu ngi liggéey liggéey boo xamee ne euh, pour yokk système de canalisation bi la defaraat ko sax Grand Yoff am nañu benn bu ñuy def euh, euh, Médina Gueule Tapée ak Rebeuss aussi nañu remplacer yëpp. mais mënuñu remplace yëpp en même temps loolu commencement rek la te bu ci yàlla àndee fépp bëgg nañ ci taxaw pour euh, au moins remplacer système canalisation monsieur Sakho ñu wax ci liggéeyu euh, li nga xam ne mooy intercepteur station pompage bu euh, projet dépollution baie de Hann tey ji hmm. fan ngeen toll ci liggéey bi waaw damay commencé euh, sant yàlla ci sant yàlla ci projet boobu euh, yàlla euh, suñu loxo la ko jaar defe na ñun waa ONAS yëpp dañu taxaw comme benn nit mhm. pour jàpp ci ba tey projet bi egg si na fu sore sore ëpp na quinze ans mhm. projet bi ñu ciy wax wante defe na yàlla sutural nañu te suñu bëgg-bëgg mooy bala at bi di jeex euh, ñu signé contrat bi liggéey bi commencé euh, projet boobu genn wàllu million nit genn wàllu million nit la concerné ñoo xamee ni mosu ñoom assainissement ñoo xamee ni saa yu taw amee ñu wax jëfu taw mooy waa Mbaaw waa Hann waa Caaroy euh, benn partie pikin ñi nga xamee ni saa yu taw amee day metti trop si ñoom te projet boobu bu paree dina tax ñooñu ñëpp lii nga xamee ne dafa nekk metti ci ñoom day fete ginnaaw jafe-jafe yi ngeen xam ne jànkonteel ngeen ko ci projet boobu. waaw xam nga hmm, da ngay xool rek nit booy nekkee ci liggéey da ngay xool lu lay jëmale kanam dëgg la métti woon na trop. Mhm. Euh, ñàkk nañu lu mat at ci projet bi bu loolu amul woon xëy na tey jii commencé nañu liggéey bi tey mais dañuy sant yàlla bi nga xamee ne jafe-jafe yi weesu nañ ko. Eh, te eh, eh, ñu ngi ci signature contrat yi defe naa loolu rek moo ëpp solo que li ci ginnaaw dëgg la gàllankoor na nag. wax ndax jafe-jafe mm. yooyu bokk na ci li ARMP annulé woon marché bi kii di Ludwig. waa loolu moo indi woon jafe-jafe bi. Uh-huh. mais li ma la mën a wax te mu leer ci man. mooy ki nga xamee ni moom la marché bi yelloo moom moo ko gagné xam nga loolu aussi defe naa confusion bu mag moo am gis nga marché public du ko gën a yomb rek la ñu war a jox déedéet dañu war a xool dafa am ñaari pàcc pàcc benn bi mooy xaalis bi ki kon a yombale mhm. mais pàcc buy jóge xaalis bi mooy li ñuy di wax euh, critère technique est-ce que méngoo na ak sa ak yow li nga mën a def wala loo mënul def mhm. mais li am solo rek mooy yàlla suturaal nañu euh, ba euh, jafe-jafe yooyu génn na ci ba ñu ngi tey jii ci phase signature bu marché projet boobu loolu rek moo am solo pour ñun. ndax am mën ngeen ñu jox àpp kañ. exactement waaw li ma la mën a wax tey man mii toog fii c'est que balaa at bi di jeex liggéey bi dina commencer te sama mbëbët dinaa def lépp ba mu sotti xam naa nag lu yomb mooy signer contrat bi balaa fin du mois de mai. tey ji ci budget ñaata la leen projet bi dikkee. waaw ñu ngi tourné autour de euh, euh, juróom-ñaar fukki milliards. Lansana Gagny Sakho may fàttali directeur de l' office national de l' Sénégal jërëjëf. merci maa ngi leen di gërëm di leen sant. Mhm. merci beaucoup.